xoqatal kese ndax mën nañu wax nit porteur de voix ni ko ñu tënk le pour que nga nopi je ne pense pas parce que li ñi def depuis des années ñu ngi koy def li may wax ni commencé wu ma ay chronique fii xaaruma ba ñëw fi de ko commencé chronique 12 euh, 14 à la RDV je pense que ça date de 2016 2014 donc mëno ñëw ba fii après tant d'expériences. ngay ñëw di nangu ñu lay xoqatal pour que nga pas possible am am sénégalais comprendre est-ce que Ousmane Sonko ou même les acteurs qui nga sur les réseaux sociaux ñoom ñooy diriger ce pays parce que c'est inadmissible ñu gis ni li ëpp ci ñun ñi nga xam ne ñun arrestation les réseaux sociaux toutes les plateformes yi fi nekk demande faire arrêter Kader faire arrêter Bougan, faire arrêter euh, Cheikh Yirimsek lolu mo nekkoon demande générale ci mois et à chaque fois chaque jour chaque heure boo duggee da ngay gis ci seen page ñuy capturer di dagg di dugal aussitôt man xam la suite lan la xaaruma woon ñu ne ma kaay wuyu wala kaay toog ni ma ko xamee la ko bëggaan xamee la ko xamee noonu la ko kenn ku ci ci et les réseaux sociaux ñi nga xam ne saytu la fay dox di dox ci télé tout ce qui est digital moom mooy brigade cybercriminalité et que brigade cybercriminalité boo accès man bi ma egsee li ñu mën ci kaw moom mooy euh, c'est le procureur de la République qui a demandé d'ouverture d'enquête judiciaire. c'est le maître des poursuites. pour ñu am ay poursuites yow. la laa boo ñu ne waaw man xam ni lii nga xam ni moom moo am moom mooy dëggantaan les réseaux sociaux ñenn ñi il gouverne de par les réseaux sociaux amul leneen parce que un état responsable yow yaay réguler yenn situation yi mais mënoo di déglu li nga xam ne mooy ay Facebook ay tweet ay non mais loolu c'est ridicule sax enfin parce que dootoo xamante exactement ñun ci yan loxo la ñu nekk suba bu ñu instrumentaliser ni ñoom aadama lañ bëgg ñu arrêté ko il suffit 48 heures pour que nga dégg aadama ñu ne la kaay nga wuyu parce que dégg nañ ni dañ la war a woo wala am na ku ñu wax dañ la war a woo pour faire plaisir à kan mais Sénégal teguwul ci loxo ay xale teguwul ci ay loxo ñoo xam si dañ leen wax ni pour que ngeen jël décision pour ceeb bi wàññeeku il faut que ngeen gis ne demande bi mi ngi jaar ci les réseaux sociaux am na ñoo xam ne wax nañ ko bi ñuy wàññi ceeb beeg diwlin bi pare wuñ dañoo jékki-jékki mu nekk demande ñu def ko yeneen ak yeneen la même chose bu ñu bëggee ñu nommer nit wala ñu wàccee nit ci réseaux sociaux lañ koy jaare et aussitôt après 48 heures maximum une semaine décision boobu dañ koy décider quel que soit ni muy blessé ak ñi muy gaañ dañuy gis ni toujours suñu dirigeants yi dañuy jël décision bobu au sérieux et dañuy koy appliquer dañuy koy def donc su fekké ni seeni ni la république est d'or nañ ñuko wax té ci ay loxo xalé yi ndaw la nek c'est pas possible et c'est inadmissible mais euh, de famille, yenn yo aussi peut-être pour ton cas dire que réseaux sociaux yi mom arrêté est-ce que c'est pas. Euh, c'est pas trop dire. mais néné est-ce que c'est pas trop dire parce que. dama bëggone poser une question xam nga sénégalais yi une ñu fi ñuy déglu opportunité est-ce que si ce si c'est pas très privé les nga ñu wax yow fan nga jaar lan la laaj nan la situation bi démé est-ce que nous sa liberté ou en réalité cybercriminalité cybercriminels c'est important. non non. est-ce le droit de parler en fait d'abord si je c'est juste pour nous je ne parle pas de son arrestation je parle de manière générale constable, bu à chaque fois que am une demande générale les réseaux sociaux aussitôt décision pour appliquer. Pour dire que nous devons... Ah, il y avait une demande sur ah, toi. Ah non, mais dès que vous me détails, s'il vous plaît. Donc, lolo aussi, l'union baye là. Bien égué cybercriminalité, santana yalla bah bah que les enquêteurs, les personnes responsables la fa fek, les personnes correct ay personnes yo xam ne seen ni ràññewuñu te l'union ñu njëkk a wax l'union mooy li ñuy def dañu koy def te dañ ciy seet yàlla xam nga loolu dafa xel. Mhm. def seen liggéey correctement charge buñu tek teg dinañ ci waxtaan luma wax dinañ ci waxtaan luñu bëgg dinañ ci waxtaan bi nga xam metti El Diouf ñëw pour mon cas ñu amé retard parce que dafa nekk ci benen dossier fi nga xam ne moom moo euh, tribunal bu Pikine dañ ma may deux heures de temps pour que le temps mu egsi malheureusement après les deux heures ñëwul ñu démarrer audition bi à partir de 12h45. Non lañ ko jappé ba 18h 19h charge man avant ñu ma koy jox li nga xam ne ni moom délai yi ñu ma bëgg a réseaux sociaux yi annoncé nañ ko ba pare dara bettuma ci. non il peut dire la vérité quand même man avant ñoom ñu may wax naan ma da ngay am mandat de dépôt li ak li lañ lay toppee charge ñu réseaux sociaux annoncent annoncé nañ ko ba pare. et pourtant man ak ñoom ñi ngi won ci même place. c'est vrai donc il faut que ñu xam man ñi ngi ma ko à 20 heures réseaux sociaux commencent à diffuser à 17h, 19h. parce que permettre nañ ma aussi ma yor sama téléphone bi ma xam ne si ne nii à chaque fois que ñu def pause bàyyi nañ ma sama bopp am na ñoo xam ne ñi ngi fa woon ñi ngi doon di ñëw di dem donc dara bettuñu ci loolu mais juste que bu ñu bëggee dem nañu xam ne état moom mooy réguler réseaux sociaux mais réseaux sociaux yi ñoom ñooy wax à autorité autorités yan yoon lañuy aw loolu moom vraiment dañ ci war a régler loolu le plus rapidement possible mais mënuñu nangu li ci des gisuma dara lu ñu ma toppee lu ma lu ma jaaxal lu ma xam ne si ne préparé wu ma ko amul dara loo xamante ne mën naa ko wax lu dul ni décision yi am na lu ma ci jaaxal ni ma arrêté am na lu ma ci jaaxal. lan lan moo la jaaxal le fait que le fait que mu génn ci réseaux sociaux yi. wala réseaux sociaux non damaa dénoncé comportement wu nos autorités envers les réseaux sociaux d' abord man foofu laay waxee. Ah. foofu laay waxee di attirer attention wu Sénégalais yi attention wu nos autorités que am na lu réseaux sociaux yi di wax buñ ko bëggee di appliquer tout le temps. danañ enfreindre li nga xam ne si moom mooy certaines procédures mais aussi dañ violer ay code ak ay règles ci yoon bi parce que loolu du dëgg du yoon li nga bëgg a wax mooy su ñenn ñi jàppee ni nekkuñu ci dëgg kenn ku ci nekk ak ni ngay apprécier man bi ñuy woo Bougane xam naa li ñu koy wooye sama kanam nañ ko woowee. bi ñuy préparé convocation maa ngi toog mais am na yoo xam ne si du ma ko wax mais lépp fa la ma fekk Cheikh yirim Seck bi ñu koy woo ni ñu ko woowee ak li ñu ko wax dégg naa ko te bi ñu toogee textuellement xam na ni kon maa ngi toogoon parce que maa ngi koy dégg seen liggéey la ñu def des personnes correctes la wax te foofu laa mën a Je la ca top lepp bu ma réseaux sociaux ñoo ci tout donc c'est à l'autorité de mu commencer xol à quel niveau le commencer di am ay fuite ay nit di tontu ci seen ay place wala di xam lan certains dossiers ba di sur la place publique. mais Kader tu es quand même d'accord que amna yenn propos yo peut être waroo ko tenir à l'antenne. terme. Euh, j'ai toujours défendu nos forces de défense et de sécurité en situation de crise sociale ou politique musuma nangu djeg parce que j'ai toujours respecté nos forces de défense et dama mës condamné képp ko xam da ngay dal ci sen kaw même en temps de crise politique yi passé nga xam dafa metti won toujours dama mës a gëm ni seen liggéey def et dama mës a gëm ni ñoom ñoom ñoo fi nekkal et dañu wara def tout pour protéger len mais and ak ñom respecter len et ba légui fi ma tok loolu changé wul si demain dañ ma wara arrêter arrêté je vais répondre et aussi je vais les respecter kenn ku ci nek ci ñoom quel que soit niveau bi nga nek grade bi nga nek dama leen amel respect et j'invite les Sénégalais aussi à de ce que ñu respecter leen respecter leen respecter nos institutions les détails politiques ça c'est à part parce que ñun ñokoy defante ci suñu bir ñun ñe waxante et les positions kenn ku ci nek ak sa gis-gis ak sa appréciation ci l'autorité publique bi nga xam ne dafa incarner ben poste mais aussi beaucoup politiser loolu mom c'est autre chose mais li wérte wóor moy li xew ci réew mi

d'accord lenn moo doon sunu différent hmm. moo doon ci bir vocal bi waa hmm. ay boom la wax hmm. man j'ai dit la police une partie et biñu ñu ñu wax ñu wax ma xamni sen li ñom lañ gëm li lañ japp dama leen ko nangul dama leen ko nangul ñu ne ñun duñu ay boom ñun ay policier lañ très eh bien duñu ay boom, te ki nga di déglu audio waxuñu audio bi am na am nañ audio am nañ ay audio am nañ vidéo am nañ numéro de téléphone am nañ tur am nañ sant am nañ tous les détails mais ñooñ dañ ko codé te yow codé woo non am na yeneen vidéo sax yoo xam ne tudd na leen ci mais yooyu comme fi mu toll nii jàll na je préfère bàyyi page boobu mu jàll mais ce qui est sûr mooy li nga xam ne noonu la ñu ko dundee man ni ma ko dundee te ñi ma fa nekkal kenn ku ne dund ko mooy kenn ci ñun xoful ragalul xamoon nañ ñi ak lu mën a am kaso yi ci Sénégal la ne te ci Sénégal la bàmmeel yi ne te fii la ñuy wéy di des ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko ñu ko yéene woon ah gis nañ je te jure